Mouhamed Bassirou Diagne responsable politique notable lébu de Dakar. Euh, defe naa du ñu dikkaat ci li waral jotaay léegi lan moo ci sa taxawaay a leeral. waaw d'abord teewaay du doon lay sax waaye wax dëgg yàlla dañuy leeral suñu teewaay gët baa da loolu balaa loolu ñu ñu nuy képp ku ñuy seetaan nuyu Sénégal di ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm ni ñu koy faral di ñaanee Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ku ñu nar a indi leneen lu dul jàmm yàlla na yàlla joxloo jàpp ba fàtte réew mi parce que Sénégal ñu am suñu amee teraanga fi lañ ko bëgg teddee bu ñu deewee fi la ñuy suul kon ko bëgg taal réew mi dinañ taxaw jàkkaarloog yow ñaan yàlla réew mi bañ a tàkk suñu teewaay fii nag si teewaayu bokk la ci biiri bokkam euh, ndax li waral teewaay bi mooy Seydina Issa Laye Thiaw mii nga xamante ne moom la lii daal ci kawam ba mu woote woote bi ñu ñëw wuy si ko suñu frère la Baye Seydi Thiaw ko jur Seydina ma njoon ku xam ku ne xam sama diggante sama wéjur Alaaji Basiru Diagne ak kër Seydina Limaamu ku ne xam sama tànk ci kër Seydina Limaamu fii laa bokk fii laa yaroo fii laa màggee lu toll nii su dalee ci sunu kilifa di doom ci Baye Seydi Thiaw jaadu na ñu ñëw bokk ak moom lii waaye tamit euh, li li li li hadis ba wax ne man ra am munkaran moo ñu indi ne jullit boo amee lu la metti war nga koo mën a euh, euh, faj ci sa loxo boo ko mënul nga faj ko ci sa xol boo ko mënul nga nga faj ko ci sa làmmiñ boo ko mënul nga faj ci sa xol nag mënuñoo faj li am actuellement ci ndakaaru ci collectivité lébu ci ci ci ci ci ci ci saax saaxee ak caaxaanee ak woyofal ak ak yelleefu lébu ci réew mi ba tax na loolu moo waral ñu di ko métti ci suñu làmmiñ ñu ngi koy métti ci suñu làmmiñ te ñu ngi koy métti suñu biir xol loolu moo waral suñu teewaay ñu ñëw jàppale suñu frère. Mohamed ndax dañ ndax dañ a tooñ loolu lañ euh, weesu ma jàpp ne Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ne moom la ñu tudd di kilifa ci yoonu murit di Cheikh Kër Serigne Touba di di di di ko am kilifa nag ñu xam kilifa am defe naa muy Serigne Fallou Son yibu man ànd naak moom màkk Serigne Fallou Son yibu di ko baax ko am yar ku bëgg diine ndax ba ñuy ànd màkk sax ñun ñëpp ay ay kilifa diine rek a fa nekkoon mu nekkoon lu rafet loo xamante ne wax dëgg yàlla noonu la lislaamu Sénégal di dundee ñu jàpp ne bu ñu toogee dégg ne am na coow lu am di wàllu suuf dama defe ne bu fekkee ne dafa am lu ñu war a jox waa tànk du ñaari nit ñett ñooy dajale tànk dama bëgg dellu si waat tuuti ci li xew lan la ak lu waral coow li dañu toog xëy dégg ne waa tànk ñi ki dajaloo fii ci yoof kër Cheikh Mansour Diouf ñu ne Youssou Ndoye mi ngi si jotaay bi jaraaf Youssou jaraaf Al Diagne que je respecte bien ma nga fa waa Ngor am na ñaari jaraaf yu fa jógee yu ñëw jaraaf Séni Gueye chef de village yu Yoff ma nga fa jaraaf Doudou beng fii bu Yoff ma nga fa waaw ma defe ne collectivité lébu nag dafa ami jaraaf am day jiréew am day jàmbur ami saltige ami euh, ndomba tànk yi bari su amee loo xamante ne nii war naa jóge ci nguur di ñëw ci collectivité lébu dañu ko war a yaatal waxtaanee ko pencoo ko waaye du lu ñuy beru tëju si biir néeg doxal ko nam leen neexee loolu nag moo éclaté am ñu ko yëg ñëw opposé wu ci def ay point de presse menaces yi commencé daw dégg nañ ni ko Serigne Issa nettalee muy lu ñaawlu ñaaw lu ndax dañu nekk ci état de droit nekk ci réew moo xamante ne nii dafa jaaduwul sax nit di dox di ànd ki i garde corps dafa jaaduwul sax nit di dox di xalaat ne yow fi mu nekk tu n'es pas en sécurité Sénégal foofu la toll man je reçois des menaces des menaces de mort te man lan laa def lu dul wax li nga xamante ne moom laa xalaat ci réew mi dañ toll ci réew mi foo xamante ne nii war na ñu toog waxtaane waat réew mi bi loolu amee Issa Diop Thiaw mi ne daf ci daf ko contre ku mel ni man ne daf ko contre président li ñu bëgg mooy nga dajale lébu yi ñu waxtaan te ku waxul loolu président mi ngi koy wax ay fen maa ngi dégg fan yi passé ay Ablaye Matar grand sëriñ euh, ñu ne grand sëriñ de Dakar Ablaye Matar man nee naa reconnaître lu ma grand sëriñ ñaam il n'est pas un grand sëriñ il pas légitime parce que grand sëriñ du faloo sanca ba loolu maa ko wax maa ko waxaat grand sëriñ buñ la falul ndom ba ga ne kër Ismaïla Gueye ndom ba nga faloon jal ma nga kër Ismaïla Gueye ku ci faluwul doo sëriñ ma dégg ko mu toog fan yee passé ne lébu yi lébu yi la wax ab Abdoulaye Diouf Sarr ak Alioune Ndoye mooy seen candidat ay waay mais man du ma lébu man xanaa man du ma lébu Abdoulaye Diouf Sarr n'est pas mon candidat Alioune Ndoye qui est mon frère papaam Ngiraan Ndoye yar ma dans la collectivité lébu ne pas mon kon fen na te kilifa war naa moytu fen di wax loo xamante ne buñ la buñ ko seetee ba ci biir du doon dëgg rawatina réew moo xamante ne réewum renseignement généraux la Macky Sall est le président le da ngay toog di ko fen mu jàkkaarloog yow di la déglu régler li mu soxla si yow bàyyi la nga dem tay la nañ lébu gi génnoo ma ci kenn nag ñett fi ne ñii coow nii dañoo bëgg a mos ak ñi ne ci biir di mos ne kenn du leen ko yàqal mooy kalaasu Ablaye Matar gi naan kii mooy sunu candidat kalaasu Pape Diagne gee fi génn fële suba naan non ñun président la ñu dama bëgg mu leer man damay tudd ay tur parce li may wax lu ma maîtriser la te sama collectivité ma kaso sama xol defee jaroon na ma dee kenn deewu fi dekkiwaat kaso bi ay nit a fa ne ay ñu newuñu fa buñ ñu fa boo ñu dem toog fa waaye ñu dañuy wax suñu xalaat dégg nañ fi Ablaye Matar xëy taxaw wax loolu Pape Diagne élection yee passé dégg nañ coow li ni mu bëree mu génn président la ñu àndal nangam ak nangam xaaruñu ñoom loolu li ñuy xaar mooy ñu njaboote ñu njaboote collectivité lébu mais soxlawuñu pour ñu nekk fi di wut parti péré fu ñu far mais ici à Yoff Seydina Issa Laye Samb mii nekkoon fii léegi mais yaayam maam Babacar laay ko jur Seydina Limaamu alayhi salaam ko jur borom rawlu bii ñu ñu ne ci ginnaawam nii moo ko jur ko ko a doon lébu waa lan lan lañ koy tànnee digganteem ak Abdoulaye Diouf Sarr qu'est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr a fait pour la communauté lébu xam nga man lan laa mujjee maîtriser ci moom mu recevoir ñu mu mii ma sol moom laa soloon membre presse bi ci yéen ñu ma contacté woon mais Issa Diop mënuñu bokk ndey ak baay mu woote lii man ma war a xëy suba di wax moo tax ma bëmbastal sama kàddu fii Abdou Khader Gueye dégg naa ko mu am lu mu wax danaa ko ci tontu ndax jii bu lébu gi tolloo fii moom am na ci part de responsabilité ñoo fooyee lébu gi ñoo commercialiser lébu gi moom nañu wax sama mag la sama xarit la ma nga nee taxaw bu ma ko rombee léegi dama koy nuyu su ma daf may nuyu nañu wax fonds yi ko Khalifa Sall daan financé fan la ko dugal nañu wax fonds yi daan jóge union européenne fan la fan lañ ko dugal kum ci neex sax nga sol sa manteau bu xonk takk mun nga ne ne culture lébu ngay incarné waaye nag encaisse gi war nga noo wax foo ko dugal problème yi am ci Lebu gi dafa bëri dañ koo war a waxtaanee maa ngi jox ñëpp dig daje semaine prochaine incha allah résidence Mamour ñu waxtaanee collectivité Lebu mu wax ci sama xalaat salaamaaleykum